ma ne c'est maire meilleur moment pour ñëwaat encore xool ndax euh, li ñu liggéeyoon est-ce que taw démb bi yàqu ko am na lu mu ci xaw a euh, yàq nag wàññi waaye ba tey euh, yàqul lépp lépp naxasaayul ñu ngi liggéey yeneen taw mën na ñëw yu ëpp doole yooyu waaw mais installé nañ ay van installé nañ alarme ñu ngi curé ah, donc loolu nekk na loo xam ne amul woon gannaaw bañ ko waxee nag. kilifa yi dimbali jàppale nañu ci ba li ñu waxoon yëpp ñu koy def ñëwaat nañ ci population yi wane nañ ne ñoom seen mbégte parce que li ñu waxoon def nañ ko wane nañ leen itam ba tey am na tuuti jaaxle parce que génnuñu totalement ci ndox mi ñun dem gis nañ ko mais nangul nañ ñu ne yëf yi par étape la. du xëy xëy rek ndox mi jeex comme dara lu mosul am par étape la mais jéego yu ñu teg dëgg yàlla nangul nañ ñu ne lii mosul am ñëw fi ci jour bi ñu jël ay mesures ci bés bi ñu gis mesures yooyu jël ay matuwaay. bi ñu demee loolu continuer ba ñun ñu ñëwaat fa tey xam ne li ñu defoon li ñu waxoon ñu ngi ci yaakaar naa ne loolu euh, war naa dalal seen xel te ñun tamit suñu xel dal na te lu mu taw taw taw yaakaar naa ne mesures yu ñu jël euh, dootul dina tax même bu mu méttee parce que lépp mënul jeex ren ren ren waaye yaakaar naa ne dina tànn du mel comme ni meloon. mooy euh, sapeur pompier dina indaat yeneen pompe yu 80 mètres cube ñi nga xam ne aussi te wax nañ ko tey. am na ñu leen may ay pompe yu ndaw mais amul ay tiyo ñun wax naa leen ñu def expression de besoin maanaam ñu wax ñaata tuyaux lañ soxla sapeur pompier dee leen jege ku ci nekk mu laaj ko xool machine am xool ñaata pompe lay ñaata ñaata tuyaux lay laaj a ah ñu jëm leen toppatoo ay tuyaux ginnaaw am nañ pompe ñun ñu jëm leen toppatoo ay tuyaux ak euh, ñaan ko gouvernement bi bu ñu xamee ku ci nekk ñaata la sapeur pompier dina def expression besoin. buñ ko waxee nguur gi di ñu dimbali ci ay tiwo ndax ñoom dëgg yàlla euh, ñu ngi leen di jàppale mais ñu ngi jàppale seen bopp tam waaw loolu euh, bokk na ci li nga xam ne euh, dinañ ko def incha allah. li ñuy lijjanti ñun mooy la ñu collecté yëpp fexe ba dem Daaru Rahman ndax ay bassin d'infiltration la ba fa demee ndox mi day dugg ci suuf te ñaari bassin yoo xam ne 26000 mètres cubes boo ko boole ñoom ñaar kon passé na 52000 mètres cubes. te loolu bu fa demee li li li li li station de pompage yi yëpp di collecté da ko yóbbu Kër Niang bu ko jëlee mu gaaw dem si ñaari bassin yi nekk daal Rahman a 7 kilomètres de Touba am naa yaakaar ne Touba day suy indoon itam dootul bari de. lay dem Daaru Rahman gaawul gaawaay boobu bu njëkkoon benn tuyau de refoulement moo fa nekkoon gouvernement bi def na bëreel deuxième tuyau de refoulement. mais euh, jàpp naa ne ñaar mën nañ ko def te euh, euh, wax nañ ko gouvernement bi te ñu ngi ciy xalaat yokk doole yi pompage bi maanaam pompe ya ñu yokk doole ji pour mooy mën a gaaw pompe ndox mi muy dem beneen bi mooy yokk tiwo yi xëj na sax comme dafa benn la woon ñu yokkaat ñaar xëj na ñu yokkaat yeneen ñaar yoo xam ne ndox mi dina gaaw a génn ci bassin Kër ñaŋ gaaw a dem ci ñaari bassin ya loolu nekk na nekk na ay ay solution yoo xam ne waaye nag euh, Daaru Rahman tam am na ci bassin boo xam ne dañ ko doon euh, gasaat gasaat ba yeggul loolu aussi euh, sàkku nañ kilifa yi entreprise bi ñëw daal di continuer gasaat bi bu ko defee dina ndox ma fay nekk kenn du ko mën a foofu kenn du ko mën a ko feesal loolu dinañu mën a dimbali bu baax donc loolu am na fi bu fi amul loon mu gën a metti mais comme am na fi dañuy fexe ba ndox mi di fa gaaw àgg